nit ku am feebaru xel ca Sandaga mu jàpp benn menuisier daal di koy rendi jël safara taal ko ba mu daanaka lu kenn mënut wax. loolu nag réew ba mu am ñëpp war nañoo tiit war nañoo jaxle gis nañ naka police jëli jee ak risque ci nekk yëpp day wane ne suñ police sun gendarmerie suñ sapeur pompier. tàggatuñu leen ci naka la ñu jëlee ki am feebar xel boo seetloo sax sapeur ma ko doon ji parce que liggéey sapeur la waaye sapeur yi en général ñemewuñu ñu amee feebaru xel moo tax foo leen wooyee ñu ne il faut ak il faut police ñëw ndax dañu nar a toog chaque fois daf def jëyee te taskati xibaar yi siiwal ko ñu toog di xaar xaaral beneen jëyee moo tax ma ne man nañu dem ci sensu fexe ba ñu ubbi ñu poser le débat rajo yi télévision yi ubbi ay waxtaan.